na temps moo ko dul maye waaye ñu ngi ziar euh, tey ndokkeel kull ko xam ne rek danga bokkoon ci euh, njabootam ay soxnaam ay mm. taalibeem ay doomam sëriñ Saaliw Cuun xalifaam ñu ngi koy euh, ndokkeel bu baax léegi nag defe naa ñu jàll ci parti bu am solo mm. muy parti boo xamee ni dañ ci waaj tàmbali li nga xamee ni moo di waxtaan bi xanaa rek profité ci entre temps bu dee am na ñu nekk ci ligne bi ñu jël leen ñoom it jox leen ci ndimbal yi nga xamee ni ñoo ngi koy séddale ndax loolee lu ngeen di taxeerlu di xaar la ci quartier général bi occasion le itam euh, ñu nuyu euh, sunu euh, nga ni honneur honneur la ko tuddee ñëw passé guddi gi ak Adina, passé ko sénégalais Euh, passé ko ak sénégalais yi nekk bitim réew euh, passé ko ak kull koo xam ne rek da bokk ci uma islamique ngir ñu waxtaane koo xamee ni ma répété waat ko xajul ci émission xajul ci programme mu télé xajul ci quartier général kooku mooy Cheikh Ibra euh, Baye Ndiaga dañuy nuyoog yow laata ca kanam ñuy tàmbali waxtaan wi danoo bég ba xame xamee ni lu ñu bëgg a wax dana koy xep donc ñu ngi jéggalu en amont ci wax yi luñu def rek na ngeen ñuko bal xër ak daanu moñu dal euh, ci euh, jotaay bile waye contane nañu lool ci ñi nga ñu nangulé euh, ñew doon ganuk quartier général ngur ngeen ñu waxtane ki nga min lool bay ndaga ñu ngi lay nuyu di la ziar. dole ma ngi leen di delloo ziar <clears throat> ma ngi nuyu aduna bi yépp mhm. di nuyu julit yépp di nuyu wa diaspora bi yépp di nuyu yoonu mourid yépp di nuyu yoonu Baye Fall yëpp <clears throat> eh, di nuyu ñi ci plateau bi ñëpp nag bàyyiwuma kenn yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen siyaare di jëkke ci siyaar bi ñun Baye Fall fu nu fekk mbakke mbakke moom lañu ñu jëkk nuyu di nuyu sëñ bi Mbàkke di ko nuyu bu baax ci turu Sëriñ Tuubaa di nuyu ki moom jotaay bi ndax buñ nekki moom jotaay bi kali da wara dem ci seigne Mouhamadul Muntaqa jotay bi jotayama du jotay Cheikh Ibra ku deg Cheikh Ibra te xam luy Cheikh Ibra di nga xamne jotay bi Cheikh Ibra momuko ko sëñ Muntaqa ko mom te nuyu giñ koy nuyu daño xamne Cheikh Mouhamadul Muntaqa len mën wat moy bëgg gi bëgg Cheikh Ibra mhm. buñ ko tegoon ci balance jël ñi bëgg Cheikh Ibra teg leen ci balance bëggam wat ko mhm. te dama leen ci jox firnde waxuma waxi euh, kii autoglorification wala jay mhm. waxuma loolu mhm. moom Cheikh Mamadul Muntaxa daa wax ne jël loxoom teg ci dënnam na Baay bu dëggal bu ne moo ma gënal sama jëmm loolu kenn wax goo moom Serigne Muntaxa moo ko wax te mu ngi circulé ci YouTube bi moom Serigne Muntaxa sëñ Muntaxa Mbàkke nee na Baay Faal bu dëggal bu ne moo ma gënal sama jëmm la wax mm-hmm, Muntaxa loolu ñëpp dégg nañ ko mm-hmm. mu dellu wax ne Cheikh Ibra nañ ko bàyyi ak jagleem mm-hmm. ñëpp dégg nañ ko dellu wax ne lépp faal ñépp di ko dégg sëñ Muntaxa nee na lépp faal la kon ay waxam laay ay wax sëñ Muntaxa moomam jotaay bi kon lépp ci moom lay dellu. Mm-hmm. noo ngi ñaan yàlla yàggal ko fi. allahumma amin. yàggal fi ñuy liggéeyal yàlla ñëpp. allahumma amin. Eh, bu ko defee ñu nuyu Serigne Cheikh Jëmb Fall. Mm-hmm. mi nga xam ne mooy Cheikh Ibra tey. Mm-hmm. te waxoon naa bu yàgg ne Cheikh Ibra li àdduna di nar a def ba bis pinc wax na ko. te sénégalais yi umpale ko. ñi ni ci biirum xam nañ ne problème yi ngeen di wax ak ay coronavirus ak yooyu yëpp ba mu ca waxee boobu ñun ñii di wax juddooguñu. ba mu waxee bu ñëwee nu muy melit Cheikh Ibra waaye nag malheureusement Sénégal. Euh, inventé ak déformé ak jugé lañu gën a man dégg nga ñett yooyu te dinaa ci ñëw. dañuy inventé lu ñu xamul. dëgg la de. déformé jugé loo xam ne amuñu ci benn élément. wallaahi Baye Diagne. ko nit ñi gëstu woon. Mhm. coono yi ñu nekk yëpp duñ dal. kon maa ngi nuyu sëñ Cheikh Jëmb. Mhm. mi nga xam ne bi may ñëw fii dama ko tàggu mu yónnee ma audio. Mhm. ne ma maa ngi yow ànd ci bis maa ngi nuyu. Eh, nit ñu am solo nitu qualité yi nga xam ne baatu qualité laa wax de réew mi kenn yebu leen ci te ñu bokk ci Cheikh Ibra Fall te bokk ci sëriñ Touba ki ma ci jëkke mooy sëñ Abo Baraka mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Fallu dama bëgg nit ñëpp xam kuy Cheikh Ibra <laughs> bokk waxuma xam pleinement loolu kenn mënu ko ndax nee na raw naa bët raw xel doom xel dong ngeen yor ak bët te bët duma gis xel duma xam waaye liñ mën a xam ci moom laa yor sëñ abo baraka mi ngeen di gis comme àdduna bépp nga koy déglu dañ leen war a xamal ni soxna buso faal moom sëñ muudu mustapha faal moom cheikh ibra faal mooy yaayam kon kon kooku ku ko xool xam ne waroo yëpp cheikh ibra maa ngi nuyu sëñ Fallou mu sëñ Mourtada waaw euh, soxna maam Sey Fall mooy dama juum foofu mooy way juru sëñ Abo sëñ Mor Moustapha la ko jur mm-hmm. waaye maa ngi nuyu sëñ Fallum sëñ Mourtada ku ne xam na ko ci sell ak baax mm-hmm. te soxna Boussa Fall mu sëñ Mor Moustapha mooy ndeyam mm-hmm. maa ngi nuyu tamit bàyyi Ndaam Fall di tax ma di ko nuyu mooy sëñ Mortala Fall ko jur te soxna mbenn fàllu mu sëñ fàllu mooy ndeyam maa ngi nuyu tamit qualité Cheikh Ibra rek laa bëgg a jëkk génne ba ñu xam ne ku ko yëpp dangaa dajewul ak ay ay sëtam waaye am na ci réew mi ñoo xam ne bis boo xamante ne bi taxawoon nañu bëgg a wane kuy Cheikh Ibra ah coow li dana bari <laughs> maa ngi nuyu euh, waa kër sëñ Cheikh Issa Dieng di nuyu waa kër sëñ Naar jenn li tax ma koy nuyu euh, sëñ Naar Dieng sëñ bari jenn ko jur te yaay sooda faalum Cheikh Ibrahima mooy ndeyam te kenn yebbu ko ci yoonu murid senegal sax kenn yebbu fi Naar Dieng kenn dàqu ko jëf kenn gënu ko euh, noo ngi nuyu waa kër sëñ Cheikh Astou Fall mu sëñ Basiiru doomi sëñ Basiiru la te doomi Cheikh Ibra soxna Astou Fall Mbaar lañ jël jox ko sëñ Basiiru mu am sëñ soxna Astou maa ngi nuyu sëñ Xabbaan mu sëñ Fàllu soxna Adama Fall ko jur Sërif Asana ko jur kon Cheikh Ibra du morom de ñooñu kenn gënu leen dégg nga te buñ ko toppee noonu dana yaatu. wallaahi ñoo xamante ni Cheikh Ibra maa ngi xam le ne moom moo ëpp sët yu mu bokk ak sëñ Touba ci àdduna sët yoo xam ne da koo siq ak sëñ Touba juróom-ñaar téeméer wàññi naa ko ci. juróom-ñaar téeméer. yu Cheikh bokk ak sëñ Touba nga xam ne dañ naan kii Cheikh Ibrahima maamam sëñ Touba maamam loolu Cheikh Ibra liggéey na ko. ndax Cheikh Moustapha Mbacke di nuyu waa Daaru Xuddoos yëpp ah, moom dañ koo jël jox ko soxna euh, euh, soxna Jeefaal mu sëñ Modou Moustapha Fall Cheikh Moustapha laax mu am ci soxna Ndey Njaxat ma nekkoon kaw Kaolack ñu jël sëñ Fall jox ko soxna Adama Fall mu jur sëñ xaban kon defe naa ne buñ ko toppee noonu ay nit ñu am qualité ñu foor ñu bokk ci Cheikh Ibra ñoom ñoo moom waxtaan wi tey macha allah kon ñooñ ñëpp ñu ngi leen di nuyu mm-hmm. soo ko nag jàll ci kër Cheikh Ibra yi am mm-hmm. Amdi Khady Fall ak euh, mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Assane ñoo ngi koy nuyu bu baax Fall Ndiaga mm-hmm. ku ko yëpp da ko koo xamul waaye jëf ak ne ci li nga war a ne ku yaakaar ne li nga ko sëñ Amdi Xadi xamoo li ngay wax eh, te nag eh, waxtaan yu may def nee naa leen baatu tubaab laa jëkk utiliser du auto glorification mm-hmm. ñëw ñu fi pour glorifier Cheikh Ibra ñun tuuti nit ñi noo ngi nuyu tamit sëñ Fallum sëñ Abdou Sakkoor mm-hmm. Sakkoor ah, di nuyu sëñ Cheikh Ngunda mu sëñ Ngundam Cheikh Ibra mm-hmm. Ndam Fall waaw di nuyu sëñ am di Moodu Mbenda mm-hmm. mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Moodu Mbenda mm-hmm. ñoo ngi nuyu sëñ Taala moom sëñ Ablaye Fall Ndar ñoo ngi nuyu sëñ Bas Fall alxuraan di nuyu sëñ Fallu mu sëñ Moodu Aminta xam naa bu ñu ko toppee. Mhm. dana yaatu. wallaay dina ñoom ñoom ñoo ngi leen di nuyu di nuyu nag murit yëpp. Mhm. di nuyu Baye Fall yëpp. Mhm. di fas yéene nuyu waa kër gi. ñi nga xam ne ñoo saytu lii. samp ko ba àdduna bépp mën a jot ci li ñuy jot. liggéey rek mooy jariña te defe naa ne mooy credo wu ñi ñi samp lii. liggéey te teg ko ci yoon. te loolu Cheikh Ibra da ko jàngale bëgg naa nag bu demee ba ci kanam ñu dugg ci mboolem li nekk ci àdduna nit di ko jëfandikoo ni ko ko Cheikh Ibra jàngale jàngale na famille jàngale na ay doom Cheikh Ibra jàngale na àndandoo nuñ koy def jàngale na lépp nu bàyyi ko fi nag xalaat bu ne ñu jël ko moo ci échec rek la def te buñ ko càmbaree ci kanam tuuti di ngeen xam ne. incha allah lu ñu war a wax wax na ko. Mhm. gis nga lii ñu wane ci écran bi. Mhm. médaille la boo xam ne euh, administration française ñoo ko joxoon. Mhm. l'étoile noire. président France moo ko décerné woon Cheikh Ibra. 1910 kon nag buñ demee ba ci kanam lu bare bare bare bare. danañ ko ci génne mu ngi aju ci laaj yi maa ngi gërëm sëñ Fall mi. Euh, ndax man maa sàkk woon mu ñëw ci émission bi. Mhm. te tey laa ko mës a gis. Mhm. ndax dëggoom far ndekete ci Cheikh Ibrahima la bokk. macha allah ma ne ko kon juumuma. Mhm. kon Pape Cheikh ñoo ngi lay sant di la gërëm. jërëjëf Baye Ndiaga. liñ lay gërëme noonu mooy defuñu ko pour jayaate. liñ lay gërëme mooy woyof gi nga am. ak muñ gi nga am. nun sori na nu waaye lépp la ñu seetlu. ak dal gi nga am ak dégg gi nga am ñoo ngi la ci sant bu baax nag. di la ci gërëm di la ñaanal mu jëm kanam. amiin ndax loolu rek mooy maye dara. amiin eh, di sant ñi ni ci plateau bi ñëpp jigéen ñi. Mm-hmm. ak góor ñi. Mm-hmm. ak Mamadou mbay Garmeek mbokk yëpp di leen mm-hmm. présenté nag ñi ma àndal. muy ñoo xamante ni ñii koo ci gis jàng na université ba génn. te Cheikh Ibrahima rek lay nooyee. Eh, Euh, Cheikh Ibra Diagne mema ma àndal fi mu nekk na ba am doctorat te mo nar a kat. mom Cheikh Diagne mi mo ngi tok ma sha allah <laughs> mo nar a sikkar sikkar de. Euh. te fami muy liggéeyee ku fa dem. do ko yeb. bo gis ak njañam li da ngay defé ne. Mhm. ko ko waré yeb la. bo gatté ah? xel mën nga ko xam han mani bo gatté xel mën nga ko xép wa kay. te ku dugg ci ku dugg ci bir di nga xam ne. Euh. kenn rawu ko. incroyable te famuy muy liggéey kilifa la fa. macha allah te te mo ñew ngir sikar sikar si. macha allah Cheikh Fall sek mi. génn na université. mi ngi ni top Abdou mbay mi jang na université ba génn. macha allah ñi ma andal ñep sëñ joxane mi mom moy sama loxo ndeyjoor. macha allah mom tayer la bu mak. ki société bu mag. macha allah waaw. kon ma ngi leen di nuyoo léegi ñii ñëpp. jërëjëf Baye Diagne di nuyu njabot gi yep mm. di nuyu ñep bismillah allah. Baye Ndiaga dëkk Cap Vert waaye tey waxtaane wu ñu Cap Vert mhm. kii xajul ci quartier général la ñuy waxtaane li tax moo dëkk Cap Vert mooy boroom fukki penc yeeg ñaar waaye ba tey waxtaane wu ñuy penc ki ñuy waxtaane xajul ci quartier général mhm. te loole euh, boobu ba tey maa ngi koy wax euh, ci mhm. nuyoo la ñu toll ba léegi ndax am na lu ma leen bëgg a euh, ci ay publicité ak togg ak ñoom seen laataa ñuy xuus mhm. ci waxtaan wi nuyu Pape Djibril Fall Pape Djibril sama nuyoog yow li muy doon mooy lépp lu ñu jàngale ci école mbaa ci université ñu bàyyiloo ñu suñuy